أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala nu toll ba tey ci suura al araf ci kàttanu yàlla ñuy jël tey ñeenti aaya ay 203 204 205 206 ñeenti aaya yoo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal juróom benn mbir juróom benn yooyu ba ca jiitu mooy alquran akbaru aaya bal huwa azamu min kulli alayat allati utiyaha rusulu alayhim salaam danañ jàng tey ne alquran te mooy téere bii nu yor mu nekk sunu diggante loxo yi muy kàddu yàlla tabaraka wa taala akbaru aaya moo gën a rëy moo gën a màgg ci aaya yi nga xam ne doomu aadama dina ko jot pour war a xam boroomam alxuraan a ci gën a rëy bépp yonent bu yàlla mës a yónni yàlla jox la ab aaya wala yàlla jox la loo xam ne ku ko ku ko gis wala ku ko déglu xam ne dëgg-dëgg kii yàllaa ko yónni li ci yàlla jox yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam joxu ko kenn ci yonent yi te mooy alxuraanul karim wala mu nekk akbaru aaya dana nekk nag lu doy waar tey nun ñu yor téere bu mel nii ba pare ñun ñu gën a sànku ci àdduna bi te mu nekk akbaru aaya akbaru aaya akbaru dalil lu gën a rëy ci dalil luy tegtale aaya boo xam ne dana wëlbati xelu nit wan ko yàlla mooy alquranul karim li gën a rëy li yàlla di jox yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jox te ñun jëriñoo wuñ ko loolu mbokk yi musiba gënu koo rëy musiba gënta rëy nu yor loo xam ne ci àdduna bi kenn yoru ko ba pare nu gën a alku ci àdduna bi ñëpp ñu gën a yées ñëpp gën a bon ñëpp gën a texee di gën a deltu ginnaaw te ñun ñu yor akbaru aaya akbaru dalil ñaareel bi mooy wujubul insaatu inda tilawati al quran danañ jàng tey war gi yàlla waral ci ñun bu ñuy jàng alxuraan déglu gi ñu war a déglu ci xutba jumaa bu ñuy jàng alxuraan bu imaam di julli julli biral alxuraan saa yoo koy dégg da ngaa war a déglu alxuraan saa yoo koy dégg ci sa nopp bi rek dégg la war ngeen xool ndax lay ndax tey loolu mu ngi ci sunu dund du hasard rek yàlla naan ñu bu ngeen déggee ñu jàng alxuraan déglu leen mais dafa am lu ñu ci jublu mais tey sunu conférence yi dañuy teg alxuraan sunu ngénte dañuy teg alxuraan ceet yi dañuy teg alxuraan yenn saa yi sax dëj yi ñuy teg alxuraan ndax dinañ ko déglu kenn du ko déglu kenn du ko sax même sax yenn saa yi nga gis koo xam dafa teg ci télém bi alxuraan mu ngi waxtaan waxtaan beneen ça loolu mooy sunu problème. téere bi ñu bëri ci ñun dañoo xamul dëgg-dëgg lan mooy alxuraan ñeneen ñi jàpp ko téere barkeelu ñeneen ñi jàpp ko téere boo xamante ne di jàmb di naan takk ci ndigg yi ah ñeneen ñi jàpp ko di ko diw ay saafara loolu mooy suñu problème ndeysaan nettali woon naa leen xissa yahud bi bu tudd Jacques ah bi mu nekkee xale daan dem di jënd ci benn magasin boutique benn cheikh bu tudd Ibrahim bu jóge woon Turquie yàgg trop Europe ubbi magasin di jaay ndeysaan xale bi ci immeuble bi xale bi saa yu wàccee moom la waa kër gi di yónni saa yu wàccee rek moom la ñuy jox ndékki li day wàcc rek cheikh bi defal ko lépp def ko ci mbuusam mu yéeg waaye saa yu wàccee ndeke doon na sàcc benn chocolat bu ndaw bu paa bi di ko jaay moom rocc na chocolat bi dugal ci poosam ne teg benn bis paa bi jàpp ko mu tiit mu ne ko bul ma booleeg sama famille dimbali ma rek maa ngi lay ñaan bul ma feeñal mu ne ko lenn dong laa bëgg soo ma ko assuré du ma la boole mu ne ko lan mu ne ko nga assuré ma ne bàyyi naa sàcc xale bi assuréel paa bi ne dootul sàccati paa bi ne ko kon man tamit assuréel naa la incha allah léegi comme da nga doon sàcc dootoo sàccati saa yoo ñëwee suba gi soo jëlee ba pare dinaa la soo jëndee ba pare dinaa la may benn chocolat paa bi ak xale bi ñu xaritoo xale bi màgg nekk jeune tollu ci digg ndawam xam ngeen ne jeune Europe ñi ci bëri dañoo alko comme jeune Sénégal yi lañ mel jeune bu yàlla nammul ci yow njub ak mbaax yàlla bàyyi la noonu rek seetaan la ci coobareem alkande da ngay alko waxuma sax ñi nekk Sénégal waaye xam ngeen ne jeune bu nekk Europe moom xam ngeen li ngeen xalaat ci moom waaye xale bi yàlla def na ci moom tawfiq boo xam ne saa yu amee problème du jullit mais saa yu amee problème dina ñëw ci paa bi na ko dama am problème comme xaritam la luy sa problème mu ne ko nangam ak nangam ak nangam mooy sama problème def ko silence nangam ak nangam mooy sama problème paa bi ne ko xaaral ma ñëw ubbi benn waxande génne benn mbuus tekki ko génne ci benn livre ne ko luy sa problème su waxee paa bi ne ko gis nga moo ngi nii nii ak nii lañ koy réglé daal di koy liiral ne ko lii moo koy réglé xale bi bu demee bu defee loolu mu réglé xale bi kontaan gën a bëgg paa bi def paa bi ci xolam fu mu wiiri ci dëkk bi problème bu mu am rek day ñëw ne ko amaan naa problème de mu ne ko lan la mu wax ko mu demaat ubbi waxande bi génne mbuus mi génne livre bi ne ko lii mooy solution bi bu demee bu defee mu réglé ko paa bi feebar génn àdduna ñu suuli ko ñëwaat doomu paa bi woo xale bu xale bu góor bi Jacques ne ko sama papa def maa yóbbante ci yow ñu dugg ci biir xale bi ubbi waxande bi génne mbuus mi génne téere bi ñu ngi ko àmbale ba mu rafet mu ne ko sam papa nee na livre solution bi naa la ko jox boo amee problème rek boo ko ubbee solution dina régler xale bi jël téere bi taf ci dënn bi dem denc biir néegam mu am problème mu ñëw mais mënul lire téere bi téere bi arab la mu gàddu ko di wër biir Allemagne mu dajeeg benn waay arab boo xam ne origine am Tunisie la mu ne kooku da ngay le da ngay lire arab kooku ne ko waaw mu ne ko dama am problème te livre bi saa yu ma amoon problème pa benn pa bu ma sama xarit moo ma daan régleel problème bi te léegi nekk fi dee na léegi na yow boo mënee lire ma wax la problème bi rek di nga mën a di nga ko mën a trouver ci biir livre bi mu ne ko waxal mu ne ko nangam ak nangam mooy sama problème rek waa ji ubbil ko benn ay aaya ne ko moo ngi nii arab bi da Jacques daal di jaaxle mu ne non mais livre bi livre lan la mu ne ko kii mooy alquranul karim ki la yàlla wàcce pour mu nekk solution pour àdduna kii mooy solution doomu aadama yi ci kaw suuf kii mooy livre julli bi mu ne ko mais man su ma bëggee nekk jullit lan laay joxe lan laay def mu ne dara fii nga taxaw rek nga yëkkati sa loxo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah nga nekk jullit tey xam ngeen Jacques moomu yahut la woon li mu tuubee xam ngeen ñaata nit la dugal ci lislaam te xam ngeen ko ah ah loolu dama leen koy bàyyi samedi bii di ñëw bu ngeen demee ngeen gëstu ko Jacques al Yahudi ah ñaata nit ñoo tuub ci ay loxoom ñun ñoo ngi nii nekk ay julit mënuñu indi sax kenn mu tuub kenn kenn suñu xarit sax mënuñu ko yóbbu timis kaay njulli ci jàkka nga déglu tafsir suñu xarit sax mënuñu ko wax ba mu julli te ñun ñoo ngi nii ay jullit lan moo tax dañoo xamul téere bi loolu mooy suñu problème mbokk yi kon yàlla dafa waral ci njur alquran buñ koy jàng nu déglu waaye ñetteel bi mooy wujubu zikri zikrillah bil xudu wal asal yàlla dafa waral ci ñun ci sunuy waxtu suba la wala ngoon la ñu am benn waxtu boo xam dañ ko jagleel sunu borom léeg-léeg ci ñun ahlu sunna ci ñuy dund sunna léeg-léeg ci ñun nuy xas ñenn ñu nekk ci tarixa yi léeg-léeg ah ngeen di xas ñenn ñu nekk ci tarix fekk am na wàll woo xamante ne ñooñu ñoo leen ci gën a organiser parce que ñooñu lu bon bon bon bon am dinañ def azkaaru sabah wal masa ñun nag am na ñoo xam ne duñ ko def mukk jamais ba yowmal qiyaamati duñ ko def te ci dund jullit ci suba ak ngoon dafa am waxtu yoo xam ne da nga ko war a jagleel sa borom waroo ko jox kenn kenn ku mu mën a doon kaa inan man kaana waroo ko jox liggéey waroo ko jox doom waroo ko jox jabar heure bi heure yàlla la damay dem defal yàlla li ma ko war a defal sama yoon ci ku fi ñu ñëw ataayaak ngénteeg céet ak dëj ak lépp sama yoon nekk ci heure yàlla la loolu nag dafa war nekk benn su ci suba gi yaa xam heure boo ko fi def ci ngoon gi heure boo ko fi def balaa ngay tëdd na nga ko fi def bil xuduwi wala asal suba la wala ngoon la ñeenteel mooy bayaanu aadabu zikri leeral nañu aaye dañuy leeral la teggin nan la ñuy tuddee yàlla teggin nu ñuy tuddee yàlla doy na rek wazkuruni azkurukum ah wala su Macky Sall waxoon nu dee leen ma fàttaliku man dinaa leen fàttaliku kan ci ñun moo koy fàtte wax leen su Macky Sall waxoon dee leen ma fàttaliku dee leen may woo yor nga sama numéro nga ne ma mu ne wala te doo ma woo yow dee ma woo di nga ko woowal doo ko woo ah di nga ko woo lu tax parce que amal na la njëriñ ah wala waaw misaal boobu dama ko joxe bu ndaw waaye yàlla nag ah li Macky Sall yor ko jox yàlla li doomu aadama yor fi ku leen ko jox yàlla nee na man maa moom lépp walillahi xazainu samawaat ku mel nii nag ne la fazkuruni azkurukum yow doo ko fàttaliku allahu akbar waykat bi sax day wax ne rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani aadama hiina yus'alu yaghdabu sunu borom boo ko dul ñaan dalay mere doomu aadama nag boo koy ñaan tout le temps même sa baay soo ko naa papa papa papa papa bu yàggee mu ne merde yow loola ay te yaakaar ne xaalis duñ koy for te sa papa la alay sa gazaali yàlla nag boo ko dul wax yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla da lay mere dafa bëgg chaque jour nga naan ko yàlla bu jege la nga koy tàllal loxo mu xam ne da nga koo soxla kon aadaab yi dañ ñu ko jàngal ba ci njëkk mooy kuy tudd yàlla da nga ko war a yelu fa war a nekk secret comme liy takk ay rajo nii di yuuxu nii ci jàkka ya loolu islaam xamu ko comme ni ñuy yuuxoo ci mbedd yi allah di yuuxu nii loolu islaam xamu ko yàlla dana boo may woo woo ma ndànk assirriya yonent bi nee na ki ngeen di woo taxul soriwut mu ngi leen di dégg yàlla nee na fa inni man yàlla ujibu daawata daa'i saa yoo mu wooy ma wuy la yàlla soriwul boo ko woo mu lay wuyu kon soo koy woo dafa bokk ci teggi ni nga koy woo ko ndànk ma ne dafa am yoo xam ne sax du yar du yaram du teggin tey jii bu ñu jàppoon kenn ci ñun si ñu jàpp sa benn mbokk police police est-ce que da nga ñëw ci buntu police commissaire commissaire commissaire ngeen di yuuxu yéen ñëpp commissaire commissaire wuy leen ma ah kon nu ñu leen def ñu bañ ji yu eh eh yéen ñaari minute ngeen eh dégage ngeen jéggi tali allez est-ce que zaale est-ce que tamit yàlla ala ala di yuuxu noonu ala ala loolu bar la la ban diine la loolu loolu sax du du teggin ak yàlla yàlla boo waxee allah allah allah ñetti yoon mu ne la labbayka ya abdi léegi nag nga ne yàlla mu ne ah yàlla ah yàlla ah nga ne fa naan yàlla yàlla nga ne fa dafay taxaw naa la ah ah ah ah ah ah nga taxaw naan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla mu ne waaw kii wuy naa ko du wax li may doyee nga taxaw rek yaa ji jëm fan il faut ñu indi suñu xel yi ba kañ la hawla wala quwwata udu llah aw udu rrahman ayama tadu fa lahu lasmaau lhusna woo leen yàlla ci allah wala ngeen woo ko ci rahman wala tur bu leen neex tur bu ngeen ko mun a woowee moom yàlla dafa am tur yu rafet waaye dafa bokk ci teggi ni mun koy woo ñu wooye ko ndànk ndànk ba ca tegu mooy atadarru wa tazallul bu ñuy woo yàlla dañoo war a toroxlu dañu war a toroxlu suufe suufelu kenn warul woo yàlla di ngand ngandulu teg say di yuuxa di di ngand di bonde di tëb dañu war a toroxlu dañu war a suufe suufelu wàcce sunuy mbagg nii ñuy def ak yàlla wallahi kenn du ko def ak président kenn du ko def ak kilifa kenn du ko def ak buur amu fi benn kilifa diine wala président de la république bu ngeen gis gaa yi nii ñuy defee nii ñu koy defee ak yàlla amul dem pale di yuuxu Macky Macky Macky Macky kenn du ko def wala yéen a ngi di toog wax leen dëgg bi waaw yàlla nag yàlla dañ ko war a ormal dañ ko war a weg ah lu raw nu nu wege sunu sëriñ yeeg sunu kilifa yeeg sunu ñëpp da ngay gis koo xam ne dafa gis sëriñ bi simi dàll yi simi mbax na yi tekkaale gi sëgg nag mucc ci suuf bu daara bu la jaree raam mu raam alaysa kazalik kan ngeen gis fi muy dugg jàkk dindi mbax nem ay gis ko dugg jàkk di bonde di génne mbagg wala sol grand mbubb boo xam ne boo ñëwee grand mbubb bi dina dina dina bu fukki nit di leen burux burux burux burux burux di leen yóbbaale grand mbubb boo xam ne dañ koo daakaande ba ba mu ba mu tale mu dafay taxaw kuc kuc waral def nii boo ñëwee nga buub ko ci kaw nit ñi gururur ba nit ñi dañ naan kii bi def nii ah te loolu ci jàkk nga koy def ana teggin bi ana yar bi nu la neex ngay toogee ci jàkk te soo demee boo toogee ci kanamu kilifa gi da nga naan ngurub yaru réglé ne cocc coccaaral beneen ba ca tegu mooy alxawfu wal xasiya suñuy woo yàlla suñ koy ñaan dañoo war a ragal toroxlu dañoo war a tiit dañoo war a ragal tiitaange ak ragal tiit waaw man kii may ñaan mii moom ndax jublu na ma wala jubluwuma ndax dina ma nangul wala du ma nangul ragal est ce que merewu la sax ba boo ko ñaanee du la may yooyu mooy teggi nii ñeenteel mooy al israaru bihi wa adamu rafi sawti bihi li ngay ñaan nga wax ko ndànk ndànk nga bañ koo yëkkati ci kaw di ko yuux kenn mustafa gis kuy ñaan Macky visa wala nga koy ñaan billet màkk wala nga nga ñëw naan Macky dama bëgg billet màkk est-ce que mës ngeen koo gis aha da ngay ñëw ba ci noppam ndànk kenn du ko dégg mu ne la ah waaw waaw incha allah wala léegi nag yow nga bëgg a ñaan yàlla di yuuxu di sàlleeru di dof dof takk ay rajo te ameer de nit ñi naan da ngay ñaan yàlla wala da ngay tudd yàlla loolu du tegginu ñaan bokkul tegginu ñaan mooy nga nëbb ñaan bi nga bañ koo wax ci kaw ndànk yaag sa borom rek na ko dégg sa borom xam na yow xam nga ndax moom ngay ñaan ñaanoo keneen sa soxla ngay wax waxoo ko keneen kon yàlla moo koy réglé wax ko yàlla juróomeel mooy masruiyatu al itisa bi salihin yoonal nañ ñu topp yoonu nit ñu baax ñi wal iqtidaau bihim fi fi'lil xayraat wa tarkil munkaraat da nga bëgg di tudd yàlla da nga bëgg yàlla di la may da ngay jéem a jaar ci yoonu gaa yi nga xam ne yàlla mayoon na leen jaar nañ fi yàlla may leen nga bañ a jaar ci yoonu saay saay seeg bandi yi nga roy nit yu baax ñi nga bàyyi lu bon juróomeel juróom-benneel mooy arimatu sujud inda qawlihi wa lahu yasjudun ci alquran dafa may barab yoo xam ne kuy jàng alquran ba yegg fi da ngaa war a tourner kàbbar jublu penku daal di sujud am ñaan gooy ñaan boo siggee ci sujud bi nga kàbbar su fekkee da nga jàpp moom moo gën su fekkee jàppoo nag am na borom xam-xam yooyu yoo xam ne dañuy wax ne nga wax subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mbokki jullit yi ay yi ñu war a jël tey lii mooy jàng buñ ciy jël ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu nangul nu ko yaakaar naa ne tey la ñuy jeexal suura al araf ah yal na yàlla may nu njëriñ ji ci nekk ñu màng ko bàkkaar yiñ ci def ci tafsir bi yal na ni ko yàlla jéggal ñun ñu ko fekke woon daan ñëw tànku dikki yal na nekk tànku yëkkatiku tànku dellu yi mu nekk tànku jéggal ñu sunu sunu bàkkaar ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaye incha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.
وإذا لم تأتهم بآية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
allahu akbar allahu akbar sunu boroom subhanahu wa taala mbokk yi mu ngi dellu ba tey di wax ak nun ci melokaanu doomu aadama yi ni ñu mel sunu borom nee na nit ñi wa iza lam taatihim bi aaya léeg-léeg ñu lay laaj nee na yow bu dee ab yonent nga wala lii ngay wax dëgg la ana aaya ana dalil yi ana dëgg-dëgg luy wane ne yàllaa la yónni yow ci ñun di la laaj waaye léeg-léeg bu la laajee nga wax aaya daal di ñëw yàlla daal di xar weer wi comme ni mu ko defee ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak yeneen aaya yi nga xam ne yonent yi laaj nañ ko comme Moussa yat wi Ibrahima safara si Yusuf teen ba Nuux gaal ga aaya yooyu doomu aadama yi laaj yonent yi yàlla di ko wàcce léeg-léeg ab yonent daal di laaj yàlla nit ñi laaj yonent ab aaya yàlla bañ koo indi mu ne mu ne wa iza lam taatihim bi aaya su fekkee aaya dikkul laaj nañ yàlla indiwul benn aaya indiwul benn dalil wàccewul dara nga dégg gars yi boo leen ñu xam ne yàlla ko bañ a indi xam ne yow yonente nga ñu gëm la parce que du fekkoon ne mbir mi sa mbiru bopp la buñ la laajee nga indi ko waaye laaj nañ la comme yàlla la gis nga yonent ba ñëwee laaj ko Zulqarnayn laaj ko Ruux laaj ko hmm? asaabul kaf mu ne leen dem leen ba suba ñu ñëwee ma toog gars yi demee yàlla téye ko ne ko mbir mi du yow foofu nag waroon na ñoo xam ne dëgg-dëgg yow yonante nga mooy laaj nañu aaya aaya bi dikku waaye nit ñi alku nañu alkade koo xam ne bu ñu laajee aaya aaya bi dikkul xaalu ñu ne law laj tabayta su taxoon indiloo ko yow léegi yow doo ko kere yow lañ la laaj doo ko indil sa bopp da ngay toog fi naan ñëw kere ko demal nga wëri ko indil ko sa bopp est-ce que ab yonent moom mooy indil boppam aaya ah wala yàlla moo koy jox ab yonent mënul dara mbindeef la waaye li mu rawee nit ñi martaba bi mu am mooy yàlla moo ko yónni foofu la rawee nit ñi waaye mënul indi dara xanaa dégg la yonent bi wax qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastaksartu min al-khayri wa ma masaniya suu man bu fekkoon ne mbir yi sama loxo la de ah moo kenn waxatu ko xam naa suba luy xew xam naa nangam ak nangam kon la sax sartu minal xëy kon lu baax rek laa yor bu ma waree feebar dama suba xam naa damay feebar dama koy tëb du ma feebar. xam naa fee bu ma fa demee am dara dama fay dem xam naa bi fii ma fi jaaree am problème du ma fi jaar kon la sax sartu minal xëy kon wa maa massani suu lu bon du ma musalaa parce que damaa xam ah yonent xamul sallallahu alayhi wa sallam. wa ida lam taatihim bi aaya bu ñu laajee aaya aaya bikkul qaalu law lajtabayta li taxoon keryaloo ko sa bopp indiwoo ko demoo uti ko ah looy toog jógal qul wax leen innama attabiu ma yuha ilayya man daal gis nga leen di wan ne ci yàlla la bàyyi ko mooy qul waxal kon du mbiru boppam su doon mbir boppam la rek du wax kul ndeysaan kul waxal innama li woo tey mbir attabiu man damay topp maa yuuxa ilayya liñ ma wax yu liñ ma jox alquran bi laay topp ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcce ci yéen jullit alquran rek la war a topp gis nga tey addina wi rawatina monde islamique bi ñu bàyyee alquran moo tax ak jullit yëpp na sax benn jullit tey mënoo dund diine cent pour cent bu fekkoon ne diine cent la am na ci ñun ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci un ak trois cinq sax kenn yëgagu ci kon fu ñu jëm ndax mënoo nekk jullit nekk ci laïcité loo góorgóorlu góorgóorlu dama mbir yoo xam ne mënoo ci dara mënoo fexe ba mu nekk diine mënoo fexe ba nga def ci lislaam li mu la wax mënoo ko dara nga ci mënul dara kon nag dëgg-dëgg li yonent ko ne innama attabiu maa yuha ilayya man dëgg-dëgg li yàlla wàccee ci man loolu laay topp kon ab julit noonu la war a def innama attabiu maa yuha ilayya min rabbi gis nga loolu ñu la wax yu sax fan la jóge mu ne min rabbi ci sama borom loolu rek laay topp su ma ci góobee gar li yàlla li ma yàlla jox daal loolu laay topp du ma topp bànneeku nit ñi léeg-léeg nga am dara say kër ñu ñëw ne ah comme semaine bi amoon naa ngénti sama sët sama première sët maa ngi doon ngénte jeudi bi passé sama première sët ah ñu dem ci xaw bi jigéen ñi ñoo naan dañuy yebbi xaw ma dañuy làng ma bu bagage yëpp tëj dàq yëpp ñu ñibbi fi kenn du fi lang kenn du fi xew kenn du fi yéen waaw ñëw ngeen yàlla na yàlla fay leen añ ngeen njogonal ngeen reer ngeen ñibbi waaye laal ay basan jëmale deux heures du matin quatre heures du matin fii du am fii waaw du am de ñëpp mer nag ñëpp mer ku nekk di wax ñii di xab di xab ñii di sama yoon nekk lan sa lan mooy ngénte ngénte la la du tudd wat ren du loolu la waaye léegi li ko def ngénte ko ñu ne non non da ngaa war a ma ne déedéet léegi ah xam nga ma ne déedéet léegi nekkatul da ngeen ne léegi da ngeen a bëgg a mooy yàlla bàyyi leen ñu mooy yàlla mooy loolu kaay leen ñu mooy yàlla yàlla loolu mooy suñu problème saa yoo waxee tey damay topp li yàlla wax rek am nga problème nit ñi dañu bëgg nga bàyyi leen ñuy mooy yàlla di def leen neex ba pare nga yenu bàkkaar bi yow bépp cérémonie islamique bu ñu yàlla bu ñu yonent bi indil danañ ko def de waaye duñ ci yem léegi Sénégal dootuñu ngénte huit heures midi léegi ban heure lay tàmbale huit heures cinq heures du matin loolu diina la fan ko jànge ah fan lañ ko jàngee fan ban diina la dëj yi kazaalika noonu la mariage yi noonu la ngénte yi noonu la caaxaan foo guddi foo bëccëg lii moo ñu tardeel lii moo ñu indi problème waaw gis nga yonent bi nag biñ ko ne kereelal sa bopp mbir yi dane innama attabiu ma yuha ilayya min rabbi yamu ci de mu ne haada lii ma leen wax basairu min rabbikum alquran bi hujjaj ay layya lu weer ibrahim dalil adilla ala ma jiitu bihi su fekkee li ma leen di wax dëgg rek ak xool leen alquran bi ay dalil yu weex naññi lu leer moo ci nekk mais dañuy caaxaan kese kese kese kese toppuñu yàlla buñ ko jàngee rek gis ko buñ ko toppee rek xam dëgg xam ne dañuy foo jaamuñu yàlla nag Sénégal moom dañoo bëgg lekk feeg mu ngi mu ngi ñor noo ngi lekk feeg mu ngi tàng noo ngi naan feeg moo ngi nooy noo ngi tëdd kenn du bugg dem waaw mu ngoog sunu borom ne lii ma leen wax haza lii basairum min rabbikum lay preuve yu leer naññ moo ci nekk te du lay mu ci loolu wa hudan mooy njub wa rahma mooy yërmande li qawmin yu'minun ñeel ñi gëm yàlla kon lan la ñu wuti da ngeen a bëgg a jub yàlla nee na moo ngi nii alquran da ngeen a bëgg am yërmande ëllëg moo ngi nii mooy alquran waaye ñan li qawmin yu'minun nit ñi ko gëm ñoo ñoo ciy gis njub ñoo ñoo ci am yërmande borom bi nee na wa iza quri alquran fastami'u lahu ngal la waaye bu ñuy jàng alquran déglu leen déglu leen Sénégal léegi nga gis ñaa nga gis ñu jël rajo bi déglu leen eh eh yéen may leen ñu dañuy jàng bañ pare kenn dal dul faale sax parce que aussi fa ñuy jàngee alxuraan kenn war ko faa jàngee ah parce que alxuraan bi tamit boo bëggee ñu déglu ko da nga koy jàng ban ko war a jàngee xam nga jàkk kenn du fa jàng alxuraan ñu ne la saay déglu déedéet ay dem ci ay ndaje ay pojom ak ay ngénteeg ay céete ki dëj di jàng alxuraan su fa nit ñi dégluwul yow la yow mi ko fa jàngulu yow la waaye li garaaw mooy nun duñ déglu alquran te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne assumt inda salasa ñetti place kenn waru faa wax ñetti place ab jullit bu ko fekkee warul wax ñetti place bokk na ci bu ñu jàng alquran fa ida quri alquran fastami'u lahu moo tax fii aaya bi borom xam-xam bi dañuy wax ne imam bi bu nekkee sa kanam di tari sax yow mi nekk ci ginnaawam di julli waroo tari da nga war a déglu parce que moom mu ngi jàng alxuraan yow da nga war a déglu déglu bi ñaara ci nekk nga déglu parce que yàlla moo ne la déglu ñaareel mooy da ngaa war a déglu parce que bu juumee nga mën koo dàgganti booy jàng buy jàng te léegi loolu mooy li ñu dal mos naa dem ci benn jotaayu islam ci mis ñu jiital ma ma julli jàng aaya yu gàtt ci saar yu gàtt bi ma sëlmalee ñu ne ma seer bi doo ñu defal benn bayaan ma jóg taxaw tàmbali ci tur yàlla julli ci yonent bi daal di laaj benn laaj daal ne bi may julli yan aaya laa doon jàng ñu ne ah ah ah toog naa dix minutes ñu doog a trouvé yan aaya la loolu moo lay woon ne yenn saa yi sax nga nekk ci ginnaaw imaam fekk yow concentré woo ci imam li muy jàng imam baa ngi jàkka ji yow yaa ngi ci stade bi fële di seetaan corner bi waa ji war a centré kee mu ngi fële di fayee ko xaalisam kee mu ngi fële di di- di di kii rendez-vous am kee mu ngi fële kële mu ngi fële kee mu ngi fee te te xoolal ñëpp a ngi ginnaaw jàkk ñëpp a ngi ci jàkk ji de waaye yu ci bëri seen yaram moo nekk ci jàkk ji waaye ruu yi nekk fi trouvé nañ ko mais toog nañ fa 10 minutes ku nekk bi ñu bi ñu trouvé ba pare nag man leen gis ngeen lii mooy sunu musiba normalement bi ma nee ña yan aaya lañ doon jàng rek warul woon am sax 30 secondes dañ ko war a wax bu fekkoon ne ñu ngi concentré wu di ànd ak imam mais maa la sax da ngay gis koo xam ne mu ngi ci jàkk ji moom toog ci tafsir bi sax waaye boo ko doon laaj léegi léegi léegi aadaabu zikri sànq yi ñu doon wax teggin yi ñuy def pour tudd yàlla du ci wax benn du ci wax benn parce que mooy dañuy ñëw rek ñëw jëmm ndeysaan du ma fàtte mukk chef bi ñu daan defal formation ndeysaan bu ñu ñëwoon toog jóge suñuy kër dugg oto dem ba yow ñëw toog xaar ko ba mu génn ndeysaan ñu lal si jaada yi toog génn suñuy téere li njëkk lu mu ñuy wax mu ñu nuyoo ba pare def ñuy wax dee salaat leen yéene yi dee salaat leen yéene yi xam leen li leen indi fii bu leen ñëw fii rek pour da ngeen jógee géejawaay wala da ngeen jógee Pikine wala Dakar ñëw fii bëgg maa gis wala ñëw fii wala def dars bu ngeen absenté dañ déedéet dee salaat leen seen yéene ne da ngeen di ñëw pour jaamu yàlla li ngeen di jàng da ngeen bëgg xam seen borom dinañu bàyyi ñu toog ku nekk 3 minutes 5 minutes mun nañu beesalaat leen seen yéene seen diggante ak seen borom waaw loolu mooy mooy diine mooy nit lépp looy def sa diggante ak sa borom na sell nga am yéene bu baax yéene bu rafet loolu moo lay dimbali lépp looy dugg nga añ nga jëriñu ci alquran bu ñu koy jàng dañ ko war a dégg yàlla wax na ci alquran ne afala yatadabbaruuna al quran yàlla wax na ci alquran ne yàlla wax na ci alquran ne ci alquran ba tey booy jàng alquran muslul yàlla ci seytaan lu tax pour du la jax jaxal ba doo am xel wala doo concentré kon téere bi la téere boo xam ne kenn ku nekk ci ñun am jaaram wirdul yow mi loo dee dee dee dee dee dee dee loo alku alku alku alku alku war nga am benn hisib wala benn sumun wala benn rubo wala benn nisib boo jàng par jour ki gën a yées ci jullit yi mooy jullit bu gàddaay alquran alquran buñ koy jàng kenn warul wax dañ war ne tekk déglu ñaareel bi mooy bu ñuy suuli néew kenn warul wax ku faatu buñ koy suuli kenn warul wax xam nga Sénégal loolu moom moom nanguñu ko fi bu ñuy suul da nga gis gars yi di yuux ñii di way ñii di yuux yenn saa yi sax ci armée yi sax dañuy taxaw di yuux ci armée yi waa ñi ñu ngi gas waa jaa ngi ñu dal gars yi ak yuux loolu kenn ñëw ko def police de police ñëw na ci kër gi def descente jàpp kër ni ci kër gi ñu mënate ko dugal ci oto bi yóbbu ko police waa kër gi génn ànd ak waa koñ bi ñu taxaw buntu police di yóbbu ñeme ngeen ah loolu la ñuy def armée di yàlla jàpp suñu bopp ñu koy suul nga gis nit ñi di ko yuux allah allah allah di yuux loolu lan dalil ci alxuraan ñeneen jël ay téere di ko bind dugal ci néew bi naan laisser passer mel ne ku jëm France boo yegg say cëpp ñu ne laissez passer ay Sénégal ñoo bëri caaxaan ñee dañu dugg ci bàmmeel bi di bind Fatimatu bintu Asad ñee dañuy bind ci kaw bàmmeel bi Muhammad ah ah ñii di so lu ne kay lu ne la ñuy def lu ne lu ne nga gis gaa yu dëgër fit yoo xam ne te boo leen xoolee xam ne ñii ñoom ay sàmba booy leen mais ñoo jiite zikar yi rasta seen bopp yi mel ne ay puubu kaña ñoo ñëw ñëw ci armée yi di dagniral di di di def yu kenn xamul nit ñi topp leen ci loolu caaxaan yooyu waaw di jéem a amaal am yërmande nag am yërmande nag di jéem a yërmande yërmande yooyu te loolu du diini ku dee buñ lay suuri yonent bi ne na ñëpp noppi Abdullah ibn Mas'ud Abbas dafa dégg dafa gis kenn ñuy yóbbu ku faatu ndeysaan waa ji door naan yàlla na ma yàlla yërëm mu ne ko yàlla bu la yàlla yërëm mu ne yow lay wax nii mu ne ko haazal maqaam laysa maqaamu du'a fii du place su ñaan ñu yóbbu ku dee loolu du place su ñaan ñetteel bi mooy bu jihaad amee julit ak yéeféer yi jàkkaarloo jaas yi di dal kenn waru wax ñetti place yi dañoo tere ku ko wax kon na leer ci ñun yàlla nee na wa isa quri al quran fastamiu lahu bu ñuy jàng al quran déglu leen waaye wa ansitu xerawlu leen lan mooy différence déglu ak xerewlu ah nit mën na taxaw nii di la déglu nii fekk déglu déglu dara affaire yaa ngi koy romb de gauche à droite waaye na ngeen ne teg attentivement xerawlu ne teg bu leen dara empêché ci lii ngeen di dégg benn baat bu njëkk bi rek doyoon na yàlla mu ne déglu leen waaye mu ne xerawlu leen ne leen teg mbir yi di dugg ngeen jàpp ko ci seen xol ba buñ la ko laajee léegi nga jaaraat ci loolu mooy wa ansitu loolu ñaar yooyu bu ngeen ko defee lan ngeen di am mu ne laallakum turhamun ndax yàlla yërëm leen allahu akbar kon ku bëgg yàlla yërëm la ci jàng alquran ñu koy jàng yow sax jàngoo mais gis nga kuy jàng nga déglu xerawlu yàlla nee na dama la yërëm voilà gis ngeen bu ñu yëkkati drapeau gars yi dañu naan teg ah ci drapeau bi lu raw loolu la ñu war a def ci alxuraan waaye tey bu ñu yëkkati drapeau nga gis gars yi mbubb yi sax dañ koy téye ba du naaw rawatina nag bu président taxawee foofu ñëpp teg la ñuy def kenn du yëngatu loolu alxuraan moo ci yell ci bu ñuy jàng alxuraan la yell. sunu borom nee na wadkur rabbaka del tudd sa borom fan wazkur rabbaka fi nafsika del tudd sa borom ci sa bopp del dugg sa néeg del wéet di tudd sa borom ci sa gémmiñ ak ci sa xol fi nafsik tadarruan wa xiifa nga toroxlu waaye tiit sunu borom subhanahu wa taala kenn ku nekk ci ñun war nga wut heure boo xam ne waxtu boo xam ne yaa moom kese kese kese keneen bokk léeg-léeg ci ñii ñuy tooñ nga gis ci koo xam ne kurusam la yor boo ko ne asalaamaaleykum sax du la faale danaan waaw di dóor rek di dem nekk ci ay waxtu ba pare doog la ne ah da nga dem man da bi nga ñëw def fekkoon may ah gis nga loolu nag ñun ñoo ci yell ñun ñoo yell ci am ci yenn waxtu yoo xamante ne sunu boroom subhanahu wa taala dong dong dong dong la ñuy tudd ay turam yu sell yi di ko bàkk di ko kañ ak di ko jéggalu ak di ko jéggalu ak di ko ñaan di ko tudd ci sunuy bopp ci toroxlu ak tiit wa duunal jahri min al qawli ñu bañ koo feeñal ci wax comme ni ko gars yi defee takk ci ay rajo di salleer wa di yuuxu loolu alxuraan a ngi ni moo ko wax nee na tuddal yàlla ndànk ci sa bopp ci sa xel wala ci sa xol wala ci sa gémmiñ ndànk boo dendeeg nit sax waru ko dégg yow loolu la la concerné mu def chaque jour damay wax ne ñii def yenn saa yi di takk rajo yi ci jàkk yi di yuuxu ñoom jànguñu diine bu ñu jàngoon diine dañu xam ne lii concerné wul waa koñ bi ñoom dong la concerné ñoom ñi nekk ci jàkk ji ñoom ñi koy def ñoom ñi nekk ci jàkk ji tamit kenn ku nekk ci yow yow dong la concerné concerné wul ñeneen voilà mais tey jii ku ko wax fii ci Sénégal de ne jàkk yi ñu takk ay rajo di yuuxu du diine ku koy fexe ñu reyal te du diine am aaya baa ngi nii yàlla nee na tudd leen ma ci seen bopp ngeen toroxlu ragal wa duunal jahri min al qawli bu leen ko yëkkati ci kaw mu nekk ay kàddu yu ñuy jib bil xudu wi ci suba yi wala asal ak ngoon yi waaw awalu nahaar wa axiruhu boo yeewoo fajar julli ba pare tuddal yàlla bu tàkkusaan jotee tuddal yàlla yow yaa xam fajar gi foo ko fi def boo jullee ba pare waxtu woo xam ne lu bon bon di nga def astaghfirullah téeméer laa ilaha illallah téeméer subhanallah wa bihamdihi téeméer ak salaatu ala nabi loo ci mën ak askar yi la wax yi ñett yi ñeent lu mel ne awus bi kalimatillahi tàmm qul awus bi rabbi falaq ñett qul awus bi rabbi naas ñett bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay ayatal kursi ak allahumma bika asbahna bu dee ngoon la nga ne allahumma bika amsayna yu demee noonu ak di gën a baax mooy allahumma anta rabbi subaak timis waroo ko fàtte mooy sayyidul istighfar sangu jéggalu yàlla yi mooy sangu ñaani yonent bi nee na ku koy def la tere dugg àjjana mooy nga dee ak ayatul kursi yi ku koy jàng saa yoo jullee ba pare kon dafa am waxtu yoo xam ne dana war a tàmmal suñu bopp di tudd yàlla suñu borom moo ko ne suba yi ak ngoon yow yaa xam foo ko fii def na nga ko tàmm ba boo ko bu la rawee nga fay ko balaa ngay tëdd def ko su la leeroon ne lii su ma ko defee dana am 10 000 tey defuma ko waaye leer na ma ne bu ma ko defee 10 000 bi dinañ ma ko jox dinañ ma ko remboursé est-ce que di nga def wala doo ko def ah dégguma dara di nga ko def lu tax nga wàcc malaaka bi ne la yow defoo ko tey nga ne xaaral ma ñëw waaw defuma ko xaaral ma ñëw di nga ko def wala doo ko def da nga koy def ñëw ne ko def naa ko de tàllal sa loxo bu daal lay jox parce que xam nga ne mais li li ñuy am ci yàlla moo ëpp 10 000 mbokk yi xoola alxuraan rek jàng ko waxuma sax askar yi ñu doon wax mais toog rek jàng alxuraan yonent bi lu mu ci wax ah lan la yonent bi wax ci jàng alxuraan ñaata tiyaaba la benn xarf bu ne ñaata tiyaaba fukki tiyaaba yonent bi ne soo nee alif laam miim ñaata xarf la nga am fanweeri tiyaaba allahu akbar kon boo jàngee jusu amma bi nag boo jàngee amma banaas wala looy am hizib la ñaari hizib nga amma banaas ñaari hizib nga ah ñaata nga am ah sabbih isma banaas ñaata la benn hizib nga ñaata aaya nga ñaata yaaba nga am mais xoolal loolu ci ñun te pourtant bu ñu ne woon léegi-léegi wallahi alazim saa yoo ko defee 10 000 la ngi nii hizib bu nekk 10 000 la ah allahu akbar kon foo tourné ci dëkk bi da ngay gis gars yi bokk ay kaamil foo tourné gars yi nga bokk kaamil bu nu duggee ci oto yi ñu ngi kaamil yi bu nu wàcc ñu ngi kaamil fu nu dugg ñu ngi kaamil koo gis rek pourtant wallahi alazim liñ ci am ci jàng alquran bi moo gën 10 000 moo gën 50 000 moo gën 200 000 moo gën 1 million moo gën 1 milliard moo gën ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal xiyaama da ngay gis koo xam ne alxuraan moo ñëw téye ci loxo bi mu ne wa kuntum tatma'una man yashfa'u lakum yowmal qiyaama mu ne wa haza huwa alquran yashfa'u lakum yowmal qiyaama doomu adama day am jafe-jafe sax alquran ne cëpp ñëw jàpp ci loxo bi ne yàlla kii maa ko tere woon nelaw bàyyi ko ma dugg ñëw bi bunt yi nga dugg te loolu gën a tuuti ci alquran li muy def allahu akbar mbokk jullit yi sunu borom nee na nañ koy tudd di ko fàttaliku suba ngoon mu ne wala takun min alxaafilin nga la waay bu leen bokk ci ñi ñi sàggan alxafla ñi amul conscience wala takun bul nekk mukk min alxaafilina ci way sàggani ñan ñooy way sàggani ñi nga xam ne duñ tudd yàlla yàlla yitteelu leen soxlaalu leen yéen yittee rek mooy àdduna waaw àdduna rek adduna rek booy soirée bi tey fan la booy tey kii bi fan la booy tey kii bi fan la waaye kañ la rek affaire yooyu rek caaxaanu adduna rek kese wala takun min alxafilin adresse bi gën a dangereux bu yàlla adresse doomu aadama mooy alxafla mooy ko amul koor boo xam ne dangaa fàtte sa borom xamatoo li tax yàlla indi la ci adduna ulaika humul bal hum adal ulaika humul gaafiluun adresse baa ngoog mooy koo xam ne amul benn conscience ci addunaam dara mbiram yépp mbirum adduna la yàlla nee na yow muhammad bul mel ne waa jooju mu ne inna allazina inda rabbik gaa ya nga xam ne ñu ngi ci sa boroom laa yastakbiruuna ñooñu duñu ngand ngandalu de ñu ngi koy tudd guddeeg bëccëg ñu ngi koy bàkk ñu ngi koy kañ di nga ci gis am na malaak malaaka yi la yàlla di wax inna allazina gaa ya nga xam ne inda rabbika ñoo ngi fa sa boroom laa yastakbiruuna duñu ngand ngandul an ibadatihi ci jaamu ko an ibadatihi ci ñaan ko an ibadatihi ci di ko tudd an ibadatihi ci di ko fàttali ko ñooñu du ñu ngand ngandulu ñoo ñooy malaaka yi ñooñu wa yusabbihuunahu dañ koy sabbaal tout le temps ndeysaan ñoo ngi tudd yàlla ñoom malaaka yi waaye walahu yasjuduun moom doomu la ñuy sujjootal gis ngeen li tax yàlla daf ko fiil mudaari li muy tekk mooy sabbaal ak sujjoot yàlla ko moom kenn moomu ko kudul moom kenn du ko defal kudul yàlla sujjoot yàlla dong lañ koy defal yàlla ne la tasjudu li samsi wala lil qamar fasjudu li man xam nga tax yàlla jël jant beeg weer yi daal di ci natt ne bu buñ sujjootal jant ak weer xam ngeen lu tax yàlla jël jant ak weer ah jant ak weer ñëpp nit su yàlla jëlee ñu ngand ñi ne ñii kenn du leen ko defal kon ñu ndaw ñi nag bu waa ji duggee ci kër gi daan ne paa bi gis nga yow boo sëqatee di nga dee kon doom yi poñe paa bi ba ci kaw ne ko kër gi ba pare ne ne paa bi ku buusee dee poñe paa bi nii ne ku buusee dee lu muy tekki mooy doom yi dañ leen tëddi ku ñuy dóore seen papa yéen waru leen faa bàkkoo ah bu yàlla ne laa tasjudu li samsi wala lil qamar bu leen sujootal jant ak weer kon li muy tekki mooy sujoot yàllaa ko moom moo tax fii mu ne wa yusabbihuunahu wa lahu yasjuduun malaaka yi dañuy sàbbal yàlla te moom kon kot wa lahu yasjuduuna moom la ñuy sujootal duñ sujootal keneen ku dul yàlla li muy tekki mooy sàbbal ak sujoot yàllaa ko moom koo ko defal ku dul yàlla yàq nga soof na yàlla rek moo ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu loolu moo doon darsu tey su ma juumulee yaakaar naa saar bi fii la jeexee loolu mu ngi nekk ci kanam wala wu yes junun mooy loolu mel ni minbar saa yuñ jàngee alquran ba yegg foofu dañuy sujjóot suñuy sujjóotal yàlla tabaraka wa taala sujjóot bi am na ñaan buñ ciy ñaan ndax mokkal ngeen sujjóot bi lan la am nañu naan sajada laka wajhi lillazi xalaqtahu wa sabaqta sam'ahu wa basarahu fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin soo sujootee kon loolu ngay wax ci sa sujoot abdullahi ibnu omar wala abdullahi ibnu abbas toxal na ne sopp nañ wa yustahabu mu ne sopp nañ li man sajada koo xam ne day sujjóot ci sujjóot bii an yaqula mu wax allahumma axtut anni biha wisran waktub lii biha ajran wajcalha lii indaka zuxran rawahu ibnu maaja an ibnu abbas jële nañ ci ibnu maaja mu ne yonent bi alayhi abba ibnu abbas moo nettali ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na soo sujjootee sujjoot boobu waxal yow yàlla yàlla nag ma ko dindil ay bakkaar yàlla nag ma ci bindal tiyaaba yàlla nag ma ko dencal ëllëg ba ma dajeeg yow yowmal qiyaama yow yàlla yàlla nag ma ko def muy sëppikuk bàkkaar yàlla nag ma ko def tiyaaba yu ma am yàlla nag ma ko dencal ba ëllëg kon mbokk yi lii mooy sunu dars noo ngi jéggalu sunu borom subhanahu wa taala njuumte yi ñu def ci suuratul aaraaf ak manqué manqué yi ndax néewu xam-xam waaye yàlla baax na bañ ko tuddee dars pour fàttalante kese waaye nekkul loo xam ne borom xam-xam mooy toog di ko tafsir waaye bal fàttalante la ñu ñaan yàlla mu jëriñ ñu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu